Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér di wóor. salaamaaleykum mbokki internet si Setsima TV yu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen siyaar di leen dalalaat rek nag ci seen beneen émission Kemtaan Kemtaan nag tey dafa euh, ñëwaat fii nga xamante ne bii mooy jàmm gën seet si waat kàngam bu mag ñu koy wax moo du Faye dootuñ ko présenté fii ci Setsima TV waaye dootuñ ko présenté ci diaspora bi à travers résultats yi nga xamante ne bi moom lay def ci Sénégal mu wërngal àdduna bi yëpp sëriñ bi maa ngi lay nuyu. waaw sëñ Xaadim maa ngi jégalu de maa lay ziar bu baax di la nuyu di ñaan ci réew mi jàmm di ñaan ci àdduna bi yàlla suñu borom def fi jàmm sim naa foogale séeréer fop mais sim naa nun jokkaatanu nu njàll te layaataayee o ɓiy ndokoor nun te fas yéene gara waxtaanaat fa nun na cira ke na njegaayo simna foog seereer fop xep oxu refna ɓino seereer mais simnang di nuyu sama sëriñ sëñ Mourtala Fall moom sëriñ moo Modou Mbenda di ko ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal gudd fan ak wér sëñ Xaadim jërëjëf sëriñ Modou Faye Baye Fall ñëw naa fi ñu waxtaane ay ponk yu bare bare bare bare bare ñu ci bëri euh, ci réew mi ak ci biti réew di wër di la euh, ñaanloo ñoom itam di am ay satisfaction macha allah di la gërëm euh, ñoom itam yaakaar naa ni am nga euh, kàddu goo xamante ne bii tey jii di nga leen ko lancé mooy sa patient yi nekk ci réew mi ak ci bitim réew nga xam ne ku ci nekk da ngay jëflanteeg moom mais macha allah mu ci am résultat. lan ngay wax ñooñu nga xamante ne bi ñu ngi ñëw ci yow di la ñaanloo sëriñ bi ginnaaw bu ñu jàllee ci weeru koor wi. waaw sëñ Xaadim waaw dëgg la maanaam man doyuma sama bopp seede comme li nga wax nit ki nga xam ne xas na maa jëflanteeg moom itam maanaam loola sama digganteeg moom la euh, lépp lu cay xew itam yàlla xam na moom xam na man xam naa leneen la ca tege mooy keneen ki may dégg du ma wax ngir defal naa nit dara ngir nit ku ma dégg gëm ne lii lu wér la wala nangam ndax motuma sama bopp seede waaye li wér daal lépp lu ñuy wax ci xam-xam bi ñu xam lañ koy teg li ñuy wax itam dimbale askan bi ak bëgg xam ne lii lii la loolu lañ ci jublu képp koo xam ne nag suñu boroom boole nañu te yàlla dogal ne li li li nga soxla ci ñun la nekk dinañ jëflante yow nañu war a jëflanteeg yow su ko yàlla dogalee mu sotti comme nañ ko bëggee ñu xam ne noonu la ko suñu boroom dogale waaye man lépp lu may seq nit ki wala lu ma xas defal nit ki man damay jàpp ne lu ma la waroon a defal la lu suñu boroom jaarale woon ci samay loxo la rek ma def pare nañ ca pare nañ ca lañ nekk daal Euh, ci loolu laay jaare sëriñ bi dafa am phénomène bu xew nag fi mu nekk nii ci dëkk bi dafa bëri lool mooy li tax ma ñëw foofu sax ci par rapport ak say patient ñu bëri tey ñu ngi doon ñaanloo ay nit wala amoon nañu ay patient tey xiiroo ngaayoo ci la ñu dëkk sëriñ bi lekkal na ma lii lekkal na ma cinq cent mille lekkal na ma un million alors yow sëriñ du fay Baye fal ci ñi nga jot a jëflanteel est-ce que ñoom itam jafe-jafe yooyu dañ ko faral di am parce que itam liggéey sa xaalis ñëw jox ko sëriñ mu lekk ko te lim lay ñaanal nanguwul dafa doy waar. waaw xam nga maanaam xiroom ngaayo bi sëñ xaarim ci sëriñ si la njëkkee de. maanaam dañ ne euh, xaw ma nu ko mag ñi di waxee xaw ma lan bu yabee góor ca doxin wala. waaye euh, nit bu la yabee ci yow la. xam nga ko defut lu mu lay yabe du la yab. am déet. maanaam loo bëgg a foofu waaw chaque jour nga gis sëriñ yi mel ni ay mbëri làmb yuy signature te koomum àdduna doo nga ko jar ak kenn ku ci nekk bëgg a wax ne yaa fi nekk ak kenn ku ci nekk jàpp na yaa ëpp sa moroom xam-xam kenn ku ci nekk jàpp ne yaa gën sa morom hmm? am na walla amul chaque jour kii bu génnee tudd nit xas ko kee génn xas kële ci ñi nga xam ne dañ leen di woowe ay boromi xam-xam te ñoom ñu taxaw war a nekk ay référence référence mooy yow yàlla dalaa cëral cër boo xam ne néew na liñ koy jox doomu adama muy wàllum ñaan wàllum ñaan dafa sew soo gisee yi ci xew yépp muy am li ko waral mooy ñi koy def te waruñ koo def ñi ciy wax te waruñ cee wax ñi koy xam lu te xamuñu ko moo waral coow yu bëri di ci am. mais sëriñ war na bàkku ah, su fekkee ne mu ngi ñaanal nit mu nangu euh, su fekkee itam mu ngi ñaanal nit nit ñi di am ay résultats soit peut que war na am euh, mais aussi bàkk boobu wala xiiroog ŋaayoo bi je pense que ci côté résultat la waroon a doon parce que bu ñu demee bay xiiroog ŋaayoo wala nga dégg waa diaspora bi naan léegi ñoom sëriñ si ñu ci bëri ay ree lañ leen di def ak nangam c'est parce que am na am na am na lu xew yaa angi sur waaw mooy bàkku gi mooy nit kii mottali koo làmmiñam ak kii mottali koo ay nit ak ki nga xamante ne nii chaque jour pexe lay def pour nit ñi gëm ko euh, ay pexe lay def pour nit ñi wuy si ko ay pexe lay def pour mën a am koom mi mu soxla ci àdduna maanaam kooku lu mu mën a def ci àdduna pour loolu wuy si ko da koy def léegi nag bu loolu amee ba pare ki woo di la ñaanloo xam nga mooy li may wax chaque jour rek dafa neexut a dégg waaye ki waroon na nekk ab sàcc wala ki waroon na nekk tyran wala ki waroon na nekk ab agresseur bu demee ba toog ba nekk ne day ñaan wala ki nga xam ne ab courtier la woon di jaay ay tere wala di trian ay terrain jàmbur di dem di wër di di def lu nekk yaa ngi dégg wala ki nga xamante ni ci ay pexe la daan dund su demee ba yàlla xiir ko ci mu nekk ñaankat te nga xam ne mën ngaa wax ak nit ki ci sutura ci secret laaj ko un million mu jox la ko te li nga koy laaj un million boobu leer na teguwul ci xam-xam xanaa da ngaa xaw a xam secret rek ñaana xam ñaan yan système ngay def pour nekk ñaan kat léegi nga laaj ko loolu ba pare lekk ko pexe yoo mën a def pour pour pour dootu la laaj xaalis boobu pexe yoo mën a def pour loolal nga lekk ko mu rees moom ngay def léegi kooka moom mooy des ci aw naqaram ndax aajoom fajuwut léegi nag kooku bu wëlbatikoo gis xam ne ki ma joxoon sama xaalis kat jarul jox xaalis mooy wëlbatiku mu wëlbatikuwaat dal sa kaw wala di la ne la xamoo dara wala mu lay wax ay kàddu yu ñaaw a ñaaw doo ci man dara waaye bu fekkoon ne ci dëgg nga séq ak moom li nga séq ak moom lu wér la lim la doon sant defal nga ko comme ni mu ko bëggee ñaan nag mën ngaa ñaanal nit du nangu loolu day am parce que yàlla mooy nangu ñaan waaye nag bu ñu waxee yàlla ba pare da ngay indi xam-xam bu leer teg indi lu wóor mu wóor la nit ki bu la waxee aajo sàngam soxla sàngam soxla bii liñ ciy dugal di ko ci def maanaam xam la ci xam la tegu ndax xam cosaan la te dafa am fu mu jugee léegi nag loolu bu amee ba pare boo ñaanalee nit ki bu donte lam doon wut amul sax dina ci xaw a gis xanaa loo xam ne nii lii mën naa wax ne ah kii kat góor-góor la li ma doon defal sotti na. damay faral ngay damay faral di dégg ngay wax ne euh, nit ki ñëw ci yow Serigne du fay ba nga ne ko waaw non loolu moom di nga ko ñaan ba mu nangu quoi soo ko xasee ni waaw. mooy li ma la wax man soo ma xasee woo nga nekk koo xam ne maa ngi yow war nañoo séq ñaan bu ñu jëflantee sama bakkan bii bu rotut li ñu waxante dinaa ko def. wala su ma ko deful nga ne ma li ma defaloon gisuma ci dara ma yëkkatiwaat li nga ma joxoon delloo la ko loolu lu leer la te yaakaar naa ne fii ba ma fi nekkee ba léegi léegi mu mot 10 fii ma toog nii yaa ngi dégg mosuma fee buuse centimètre waaye koñ bi ñu fi dëkk ñëpp xam nañ ma te man benn kàddu bi ma yor moom laa yor ba ma toogee fii ba léegi yaa ngi dégg xëy na lii dafa ñëw yokk ci sama liggéey mooy wax ci média dafa ñëw yokku ci te boo amee ay nit ñu nekk say nit di liggéey loolu mu yaatu suñ ko sàkkoo ci yow danga koy def dugg gi ma ci dugg nag ba dem ci dem naa ba tàmm ko di di di di di ci wax di ci leeral soo ma laajee wala nga ma dem nañ def nangam dinaa ko def waaye dem na ba sax da ngay rus a génn sax wax da ngay dem ba dootoo ci bëgg dara ndax li taxoon ngay def ñii xaalis a tax ñuy def ñii yàlla moo leen ci xiir moo tax ñu def ñii dañ koy def ngir dañ ko war a def ñii dañ koy def ngir dimbale nit ñi nga xam ne sonn nañ te amuñu ku leen faj ñii dañ koy def ngir lu ñu war a def la kenn ku ne am na mission boo am ci kaw suuf danga ko war a doxal yaa ngi dégg bu loolu amee ba pare nag lii waxukaay la tey yow mi toog fii ñëw di ma laaj bu fekkoon ne yoroo lii nga am sëriñ te nit ñi fii ñi fi gëm sëriñ bëri nañ du ma ne ñëpp ndax man du ma généraliser di tooñ euh, bu nit ñëwee ci yow ne la ah sëñ xaari man kat damaa soxla sëriñ bu ma ñaanal ci aajo sàngam da nga yóbbu ci ci nga wóolu est-ce du communication. Mm-hmm. soo ko fa yóbbu woon tey te waxu seetaane ko fii nga dem mu nax ko itam kooka ab tappalekat la naxaatekat la. Mm-hmm. lii itam noonu la mel boo ci nekkee ku nekk am ñaankat dem ba ci wax li ngay wax nit ki toog néegam yor téléphone am nii seetaan la gis la. ah say kàddu doy ko mu woo la ngela na nga fexe ba woo gi mu la woo yëg mu yëg ngir ci sa kàddu gi ngay wax nga dimbali ko te yàlla tax ak itam la muy sàkku ci yow boo ko mënee nga def ko boo ko nga ne mënuma ko loolu mooy li baax. waaye nag occasion la pour man lii mën na def ku nekkub sëriñ ndax boo waxee faaw dina am ñu la seetaan te dina am ñu la gëm waaye nag sëriñ moom sëriñ dëgg dëgg dëgg dëgg maanaam su média amul woon waxukaay amul nga tëju sa néeg ba jant bi so ñi nga war a faj bu ñu nekkoon ba maatam laa la wax de ala kulli alin dañuy ñëw ci yow te duñ xam lu leen fi indi yow doo xam lu leen fi indi. d' accord waaw. sal sal sëriñ ci affaire rawaan lay dox ci affaire jinne lay dox. Mm-hmm. léegi ci affaire rawaan yooyu muy dox te yow nga nekk sëriñu ñaankat am ay rawaan yu baax am ay jinne yu baax maanaam sa yitte yow saa yu taxawee te ci ñaan rek la war a amee maanaam faw rawaan yooyu indil la kooku noonu ba mu egg si ceew mënul ñàkk. d' accord alors euh, sëriñ bi tey damay dugg ci beneen ponk parce que sëriñ Modou fay saltige la am na xam-xam boo xamante ne bii xam-xam bu bu ñu dul la ñenn ñi sax dañu koy woowee xam-xamu mbaa xam bu ñuul ñaare waaye lu mu ci mën di doon wàllu ngóora fan yële paase génne nga fi paaka rek kese na mën nga ci faj ngóora tey dama bëgg ñu taxaw ci ngóora waxtaan ci euh, sëriñ bi naka lay fajee ngóora. waa ngóora mooy góor gu tële. wala góor gu néew kàttan yaa ngi dégg góor gi nga xam ne daan sëy ba mënatul sëy wala góor gi nga xamante ne nii buy sëy day gaaw a daanu wala góor gi nga xamante nii awraam bu jugee da dul dëgër wala góor gi nga xam ne bu tiimee soxnaam awra bi day wàccaat wala góor gi nga xamante ne nii buy sëy mànniw da dul am mànniw wala góor gi nga xam ne bu eggee ci soxnaam maanaam bu dugalee benn yoon rek fa lay daar awraam bi wàcc mu daanu loolu lépp ci xeetu tële la bokk wala ki nga xam ne dem na ba awraam mënatut a jóg dara loolu yëpp ci xeetu tële la boobu wala ki nga xam ne awraam dafa feebar feebar mooy def ay góom wala mu am ay xub wala mu am ay picc wala awra bi dëng wala awra bi gàtt wala awra bi di lemu yaa ngi dégg yooyu yëpp ci xeetu wàllum ngóora la bokk léegi nag yooyu yëpp bu amee maanaam faju rek nga mën a def faju kese nga man a def mënoo def leneen ndax li nga daan man ba munatoo ko wala li nga xam ne gisoo ko woon ci yow dem ba gis ko ci yow faju te booy faju da dem ci borom xam mu faj la te borom xam-xam boobu da koy segg seetlu ba xam ne kii li muy wax nii noonu la deme wala déet wala kii mën na laat wala wala kii yooyu yëpp dafa dafa am solo kon nit ki lépp looy dugg da ngay xam lu mu doon. Euh, euh, sëñ bi ngóora dafa nekk loo xamante ne bi dafa dafa crucial quoi ci doomu aadama tey ki ngay fay ki ngay faj ngóora est-ce que mën nañu xam moo du Faye par exemple ci ban durée la koy faj parce que ndax traitement lay doon bu yàggam déet. faju boo gis. traitement la loo gis ci àdduna muy jëm ci wàllu yaram ak wàllu ñaan lépp lu ñuy topp la topp googu ñu koy topp mooy sëriñ bi xool ba xam ne mën na laa faj mooy xam nga jabet day tëleloo nit siti day tëleloo nit ngelaw day tëleloo nit émérite day tëleloo nit tension day tëleloo nit yaa ngi dégg feebaru deret day tëleloo nit te xeeti feebar yooyu yëpp mën naa dal nit ki te fekk ngelaw mooy baas bi ngelaw mooy baas bi ngelaw nag ñaar moo koy dugal ci nit seytaane maanaam li ñuy wax nitu guddi wala rab benn bu ci nekk dafa am anam yu mu koy dugalee ci nit lu tax mu dugal ko ci nit lu tax mu gis nit kooku dugal ko ngelaw boobu ngelaw boobu bu duggee ci yow day def ci yow comme maanaam euh, luy dox ci sa biir deret ji dox googu muy dox ci sa biir deret ji maanaam du toog benn place mën na lay def ay mettitu tànk wala mu lay def ay méttitu ndigg wala mu lay def ay méttitu biir wala mu lay def ay méttitu bopp yaa ngi dégg wala muy dox ci sa yaram bi xam nga xeet yooyu yëpp da koy def léegi loolu bu amee ba pare léegi nit kiy faj nit kooku nga xam ne dafa war a faj nit kooku pour li mu li mu li mu tawat ndax nit moom xamul dara maanaam kook léelu kem xas daal ba mu war a saakur ji ëpp sëriñ xamut li mu war a def su la proposé ne la lii moo may metti wala lii moo ma nekk ci man léegi yow yaay xool loolu lan moo ko waral wala lan mooy sabab bi yow ki nga xam ne yow yaa ko war a faj yaa ngi dégg nga xool feebar yooyu ma la limal yëpp ban moo ko ci teg tawat boobu mu yor nga xam ne bii la nga faj ko yaa ngi dégg su loolu amee ba pare tey dangay gis koo xam ne daan la damaa tële waaye dama mënatul sëy dara dara dara loolu mën na nekk takk xala mën na nekk feebar comme feebar yi ma la wax waaye mën na nekk itam kii nu mu tuddati rab léegi nag rab bu jàppee nit ki pour dootul mën a sëy xam nga da dégg koo xam ne danaan faju naa ci sëriñ ba sonn mais wiruma dafa mel ne rab moo ma téye wala nga dégg sëriñ bu lay faj ba ci yàgg mu ne la rab moo la jàpp gon yow jërut ngay faj parce que boo fajee nit ki wérul nga wëlbatiku naan ko gon raba la jàpp waroo ko lekk xaalisam da ngaa war xool ba xam rab moo ko jàpp wala rab jàpp ko am déet. nga doog a engagé wu ne man naa laa faj. am du noonu léegi nag rab ki mu jàpp nga xam ne dalaa jàpp ci wàllu ngóora loolu nañ koy jaawale lu bëree bëri te bokkeewul mooy rab bu la jàppee bu fekkee daf lay fiire ba jàpp la ci wàllu ngóora wala nga am lanteeg moom wala ci cosaan wala ci dara lu tax mu jàpp la maanaam dootoo mën a sëy su fekk demee ba lay jàpp soo tiimee sa soxla am rab day wàccaat day mel ne sagar day nooy népp hmm? maanaam rab bu la jàppee noonu lay def du la may sax ngay dugal ci pax mi pour am dara. da koy téye bu dee takk xale itam même noonu lay def man nga jekki jékki di yëg sa bopp fu di yëg sa bopp di yëg si bopp te boo demee sa soxna dootoo yëg sa bopp wala boo tiimee jigéen ba war a ba war a def li ngay def dootoo yëg sa bopp mais man na sax boo demee ba wéet nga yëg sa bopp yooyu yëpp xala da koy def kon lu ci nekk dañ koy ràññee pour man cee faj nit ki te ngóora bu ci nekk façon bu mu ciy dalee nit ki am na xeet boo xam ne maanaam ci côté boo xam ne garab yoo xam ne moo ko war a faj pour nit ki wér mais du nekk même feebar boo jot rek wala même tudd feebar comme nga ne ngóora rek benn gar façon garab rek moo ko war a faj. kon garab mënut a faj nit ñëpp parce que feebar yi bokkuñu. kon d'accord si ñi nga xamante ne bi dañuy jékki dem jënd benn. doom rek wala benn comprimé naan ko tey ñu yëg seen bopp suba ñu dem jëndaat doom boobu wala ginnaaw suba ñu ñu utiliser leneen ngir mën a loolu la leneen mën a jural. man gis naa ñoo xam ne nee nañ ma dama daan naan ay doom maanaam koo gis muy naan ay doom bu yàggee dina dem ba bu naanate doom yi du sëy Hmm? waaw gis naa ko ba taay nit toog na fi démb rek nit toog na fi wax ma ko démb rek nga ma saa yu ma bëggaan a sëy ay doom laay naan pour sëy mais léegi sax su ma naanee doom yi du ma sëy te bi mu xëyee ci suba nee na ma sëy naa xam nga loolu leer na. Hmm. waaye lu ci ne dafa am xam-xam maanaam ñun réew mi ñu dëkk xam-xam dafay am xam-xamu cosaan am fi am garab yu fi nekk garab yi nit ñee tax suñu borom saxal ko fi hmm. ñun itam ñun ñoo moom garab yooyu yaa ngi dégg. nit ñi garab yi nekk fi ñoo leen war a faj déew mi nga tawatee am na garab yu fa nekk am na ay borom yi xam-xam yu fa suñu borom teg yoo xam ne nii loolu moo leen tax a jóg kon loo jëggaani rek bu la loree yaa ko teg sa bopp waaye it ci biir itam loolu am na ñoo xam ne ci tappale lañ nekk ñoo yàqal nit ñu bëri ñooy tax nit ñu bëri dem ba loru ci seen feebar dem ba nga jaay sa bien yëpp di faju dootoo wér nga dem ba taayee te faju yaa ngi lor sa bopp waaye am na ñu la njëkk lor ba pare ñiy woote woone borom xam-xam lañ te xamuñ ci li ñuy def dara moo leen lor fii am na fi sëriñ soo xamante ni yàlla seede na li may wax nii sama bàmmeel laa taxaw fu ñu dégg garabu ngóor a jëndi ko naan ko seen soxna bu baaxee sax duñ ko jox seen client yi ñoom ñoo koy naan. Hmm? waaw wér na bari naa sëriñ yu may gis ñu naan dañuy faj ngóor a ñoo gën a tële fu ñu fekk ngóor a du doy ñoom ñoo kon ngóora du lu yomb comme ni ñu koy waxee nii ak di ko jaay nii di ko pasar pasaree ñu koy déggee. bu yomboon ni sëriñ si bëree. gon koy jërëtul kenn di di waxati ndax gon euh, gon koy ñëpp wér nañ. déedéet ñëpp wér nañ sax parce que chaque jour nga gis ku ne la mën na maa faj ngóora lan moo tax nit ñi di dëkk di ko soxla ba léegi. gaa yi fajuñu dañuy joxe ay calmants wala soit dañuy joxe ay stimulant rek loo xam ne day yokk sa doole. bu ñoo liñ lay jox sax doo ci gis dara maanaam feebar dama ne ne ki xas wax ne damaa nangam damaa dal kooku dafa am lu la war a lié ak moom nga gëstu ba xam li ko dal nga dindil ko ko complètement mu deñ. d' accord léegi damay ñëw ci euh, sëñ moodu booy dindi ngóora par exemple ñëw waa ji ne la dama amee euh, problème mu kattan. ci durant traitement bi nga koy traité est-ce que dafay continuer di mën a sëy saa boo ko joxee garab gi tey mu naan ko war na mën a sëy tey ko continuer traitement bi wala wala fekk traitement bi jeexul du sëy. Xaadim nee naa la man dix ans ngi nii may joxe garabu ngóora. Mm. yaa ngi dégg te ñi ma koy jox ñëpp kàddu gi benn la fii soo fi toogee ma ne la ñu waxtaan ba déggoo ma jox la ko dama naan la bu guddee xool ko ak nu tële bi man di mel su guddee sëyal laa lay wax. Mm. ngi dégg. te boo ko defewee niñ la ko waxee ba mu egg comme ni nga ko bëggee ci kàttanu yàlla da ngay wér waaw xam nga loolu leer na mm-hmm. waaw. da ngay wér te dootoo amati problème problème ngóor alors euh, euh, Serigne. amati ngoor ngóor du ma wax ndax feebar bu la ko teg bu bu yàlla dogalaatee mu ñëwaat ci yow day ñëwaat rek. am déet la la ko tegoon. <laughs> te dundam jeexagul kii dund te dundam jeexagul. yàlla teg ko feebar nga ne ko dootoo feebar te yàlla moom wax ko dootoo feebar. loolu daa xoromu de. alors Serigne Modou dama gis ci yow benn particularité boo xamante ne bii ñu bëri souvent dañ koy wax mooy dëggu gi ak euh, melokaan bi nga euh, mel aussi ci wàllu euh, direct par rapport ak sa ay ay propos. te nga gis ñu bëri boo déggee ni diw nax na ma diw lekk na suma xaalis wala itam yenn yi naka la lay def. waa yooyu yëpp man boo gisee sax su may wax yooyu man gis nga morceau bu weex bee. Hmm. mën naa laa wax ne la sama xol noonu la mel man yéenewu ma nit lu bon. du ma wax ci nit lu ñaaw lu ma nar a wax nit ci lu ñaaw wéet wax ko rek su ma toogee dama la koy wax man noonu la ma yàlla binde waaye nag dama nekk koo xam ne dama yërëm nit ki xamul dama ko yërëm te loolu laay dund moo nekk ci man ñi ma nekkal xam nañ ko man lu ma ñàkk rek nit a ko xañ sama mbiri bopp kese kese kese man yitteelu man man na maa bañ am dara man na maa bañ a defal sama bopp dara mais na nit ñi am jàmm d' accord euh, euh, leneen li may wax mooy ci wàllu almet sëñ bi almet foofu laay terminer almet moo moo moo moo lëmbe dëkk bi al almet yi nga xamante ne bi dañ ne wàllu noob la 7500 lay jar donc da ngay booleendoo almet gi taal xaw ma nu ñu koy defee toutes les façons ñu ngi ciy lekk ay 7500 donc yow loolu naka nga ko gisee. waaw man de loolu moom démb sax laa ko yëg. Hmm. démb laa ko yëg waaye nag xam nga xam-xam daa yaatu. Hmm. xam-xam. dafa yaatu kenn ku ci nekk ak xam-xamam la tax mu koy def man daal lépp lu nit di def na nga ko def sa diggante ak sa borom na nga ko def sa diggante ak doomu aadama yi nga xam ne yàlla moo leen wàcceendoo ci kaw suuf te kenn gënul kenn nga xool ci sa diggante ak sa borom lépp looy wax nit kii mu nekk dëgg loolu moo ëpp solo beneen ba ca tege mooy bu dee xam-xamu baatin la ndax man xawma ci dara ndax man chaque jour bugguma di wax ci lu ma xamul ni ma ko nettalee nii noonu laa ko déggee ndax man yu bëri mën naa xew sax te duma ko yëg waaye li wérte te wër mooy ñaan bu dee côté ñaan la ñaan moom lu ne nit mën na cee def aw sagar sax nit mën na koo for fële ci mbedd mi ñëw jox la ko mu faj say aajo ndax mbirum baatin la moo tax te côté bu ne lay nee la ñaan affaire rawaan la ak affaire jinne gon lu ne mën na cee xew yaa waaye nag Sénégal nañu moytu leen ku toog ci télé naan boo defee nangam di nga wér wala boo defee nangam am nangam wala jékki-jékki rek xëy am Samba Ndiaye jóge fële ne saraxe leen nangam su ngeen saraxee nangam wala nangam dina fi xew loolu bu ko nit ñi moytuwut dina la dugal ci guuta goo xam ne doo xam ndax ki toog ci télé naan la wirdal tur yàlla sàngam boo ko wirdee di nga am nangam léegi man ma dégg ko xaw ma dara ci tur yàlla ma toog wirde lim bi ma wax ma tëdd guddi suñu borom wan ma ne ma tey wan ma lu ñuul. te man xaw ma lu ñuul lu muy tekki wala mu won ma lu weex xaw lu weex lu muy tekki wala mu won ma benn pom wala mu won ma benn wala mu won ma daal moo xam lu nu ma dikk gi gént gi dikke wala mu won ma gaynde wala lu mu man di doon ma jànkonteeg moom ci guddi gi yeewu rek xëy dem sama yoon wala ma gént loolu ba pare yeewu rek fàtte la ma géntoon léegi kooku benn munul firi gént ba xam lan la war a def pour tur woowu mu doon wird lim ci doon sàkku lan la liyee ak gént googu wala xamut lu muy def pour ndax nit boo géntee fàtte gént gi am na sarax yoo war a saraxe pour gént gi rappare waat ci yow balaa jant bee so am na loo xam ne boo géntee fàtte ko war nga koo def pour gént googu ñëwaat ci yow image bi ñëwaat ba nga xam ne lii nga géntoon lépp loo ciy tekki wala loo ci def nga def ko léegi nit ki nekkutub sëriñ euh, xam def loolu man ngaa génn jinne fàdd la man ngaa génn rawaan fàdd la man ngaa tëju man ngaa def lépp ci nit ki kon nit ki loo koy defloo na nekk lu leer na nekk lu wér walla jëlal garab sangam def nangam nit ki dem xob fàq xobi nangam defar naan mu indil ko problème yow yaa ko lor te gis nga ñi koy def ñëpp man ragaluma ci kenn man sama bopp laa gëm ndax du ma tappale duma wax nit lu ma gëmut lu may wax nit lu leer laa lay wax ñoom sëriñ yi koy def yëpp seen bopp la ñuy peegal seen bopp moo tax ñuy def parce que ay ñaankat lañ dañuy toog seen kër nit ñi di leen fekk si ak nit ñi di leen woo di leen ñaanloo te lañuy ñuy ñaanalee nit ñi pour nit ñi am résultat wala lañu yor xam-xam ba ñu yor yaakaar ko duñ ko joxe ci télé bi nañu waxante dëgg duñ ko joxe ndax boo demoon ñoom di leen ko wax jàngaleen ma ko dañ lay laaj xaalis ne danga may fay wala lii ni ma ko amee damaa fay yaa ngi dégg beneen ba ca tege nga toog wax loolu defoo ko ngir da ko def maanaam stratégie la pour nit ñi gëm la pour ñëw ci yow ndax tey boo waxee loolu nit ki dégg ko te léeru ko dina jéem a contacter laaj la nan laa war a yan yoon laa war a jaar pour lool noonu nga defal ma ko di nga ko laaj xaalis. Mm. léeg nga dégg ko naan damay firi gént gratuitement ci télé. di firi te boo ko woowoon tey na la génne sarax yi mu lay firi bu la firilee ba pare sarax yi mu lay génneloo maanaam lam lay jëndloo boo ko jëndee fay boo doon ñaan doo fay loolu doo fay loolu. te nit ñi dañoo fonk sarax koo xas wax sarax rek dalay gëm da koy def parce que njariñu boppam la léegi nag yow nit ki nga ne ko génneel sarax sàngam jox ma ko mu génne ko jox la ko. nit ñi sëriñ su bëri fi mu nekk nii sarax si la ñuy dóore nit ñi ndax dañ lay génne loo sarax yoo xam ne day compliqué doo ko mën a génne nga yónnee leen xaalis bi léegi ñu ne la loo ma jox baax na wala wala nangam nga may fay laaj la lu gën a tuuti nga ne kii da du laaj lu seer fekk laaj na la de yow yaa yëgut ne laaj na la sarax yooyu mu la laaj lay jël def ko ci poosam dem noo si jeeku bëri na sëriñ su koy def. gon hmm? dafa am loo xam ne booy def mbir man Sénégal gépp ñëpp laa yamale bépp doomu aadama ma gis comme sama bopp laal def ni ma bëggewul ku ma nax bëggewu ma ku nax samay waajur bëgguma ku nax sama rak noonu laa bañee ku nax keneen man hmm. man noonu laa mel kon am na yu ñuy def ci télé yi di ko wax ay sëriñ di ko digleeg naan nangam du dëgg gëmuñu ko parce que duñ ko defloo seeni waajur duñ ko defloo seeni seeni rak te ñoom sax dañuy am problème di dem ci seeni moroomi sëriñ ñu leen koy régleel dafa mel ni seen bopp lu bëri mel fi ne nii da taxaw pour défendre défendre ñi nga xamante ne bi dañ leen a nax ba kenn dootul naxati kenn ci wàllu. noo man su ma xasee di wax nee naa la man moom boo bëggee boo def seeg man émission te te te maanaam man damaa nekk nit koo xam ne su ma xasee di wax li ma naqari. aw ma leen lu ma naqari sama àdduna sama jëmmi bopp ji waaye léeg-léeg ngay seetaan di gis loo xam ne leer na le ka koy dégg te xamul ñoom waxuñoo ñun ñi xam parce que ñun ñi xam kenn mënul wax loo xam ne tegul ci xam yow mi xam nga toog di ko gëm wala dara te Sénégal fii bu nit waxee nga weddi ko wala nga wax nga wax xam-xam ñu ne dafa soxor da ko iñaane li am wala nga wax mu ne damaa iñaane li am wala mën lay tudd pour am bës fii kan moo fi tudd nit pour am bës xanaa ko ñàkk jom xanaa ko amul fulla mhm. nit ku nekk sa bopp doy na la mhm. yaa ngi dégg gon bu ñu waxee ci péncu mi maanaam lii waxukaay bi àdduna yëpp a koy seetaan yow ma ca wax itam boo bañee ku ku jubbanti say wax wala nga bañ ko wax ci loo wax da la ngay wax da nga koy yemale sa biir néeg wala sa biir kër wala sa njaboot soo ko waxee ci pénc mi nit ñi tontu ci soo defee lu dul dëgg boole ko ci ñaan te nekkul dëgg wax ko ci wàllum ñaan dañ ciy wax a ah, man de dama ciy wax parce que bu yàqoo ñun ñëpp la yàqul te soo toogee wax man waxuma te ma xam ne lii du dëgg am naa féq laa beneen ba ca tege ab ragal laa te man duma ragal ragaluma benn sëriñ parce que Sénégal ba mu daj Afrique ba mu daj wëral ba mu daj ci Sénégal gépp doo gis ku ne man Moodu la muy faje wala maa ko jàngal xam-xam wala sunguf yam yor maa ko jàngal wala secret bi maa ko jàngal amut sëriñ boo ko ci te sëriñ sépp léegi ay nante lañ xam nañ téléphone dañuy seetaan YouTube ku ko ci xam wala nga xam ku ko xam wala nga mas a dem ci àll bi wala nga mas a dem fenn ba gis mag mu ne la keede maa ko jàngal xam-xam bind ko ci commentaire yi nga wax ko ne man la diw xam naa ci dara loolu leer na. jërëjëfati Serigne Modou. nañu yërëm nit ñi te dimbale leen te xam ne nit bu jàqee ñaan moom du fi jóge nit ñi dañ koy gëm parce que balaa nga buñ la naxoon tey ci ñaan balaa ngaa xam ne mënoo bàyyi sëriñ ñu nax la nga jekki jékki amaat problème sa xel mi ci sëriñ lay dem danga nga naan ah naa dem rek dangay dem kon léegi nag ngir yàlla ñi nga xam ne ay ñaankat lañ nañu dimbale nit ñi man waxuma ne damaa mën a ñaan waxuma ne damaa am xam-xam waaye yàlla may na ma xel te xam naa ne yàlla may na ma bugguma nit kuy nax nit kon li nga xamante ni moom lay def dina fexe ba nit ñi nga xam ne ñoo ci nekk ñu xam ne lii jëru ko te naa la xamal benn affaire de xëy na daa ñëw gudde waaye ñaankat buy lekk saraxu nit yaa ngi dégg wala ñaankat boo xam ne dangay ngay ko nit lu seer di ko lekk man ngay noos di sol ay jasneer ak dawal oto yu rafet ak lu ne nga dugg ci waaye balaa nga dee di nga paralysé wala nga gumba wala nga feebar feebar boo xam ne dina sonal dina la sonal dina sonal say mbokk ndax am na fi am na mag ñoo fi daan gis ñuy ñaan ñenn ñi ñu ngi ci àdduna bu metti ñenn ñi ñu ngi ci àdduna bu sedd ndax ci dëgg lañ nekkoon yooyu nag dafa mat a bàyyi xel maanaam ki dund ñeen fukki at war a dese nga ñeen fukki mbubb yoo war a sumiwaat bu la yàlla mayee fan wu guddi wala juróom benn fukki mbubb yoo war a gon ndànk-ndànk teey maanaam teey te dal xam li ngay def teg ko ci dëgg ñaan lu la neex mën nga ko ci laaj bu la neexee nga laaj nit un milliard bu la neexee nga laaj moom yemul fenn la neexee it nga ne nit loo ma jox baax na bu nga laaj nit trente cinq mais lépp na tegu ci dëgg ku mu neex neex mën nga koo laaj waaye na nekk xam-xam ndax yaa moom sa yëf lu la neex nga koy defee. na ci dëgg li nga koy defal itam na ko gis soo ko laajoon un milliard yaa xam yow la engagé bu la neexee nga lekk kook sa njaboot. jërëjëfati euh, Serigne Modou Faye bàyyi faal donc mu ngi noonu ci euh, émission bu am solo boobu tey nag mu wax ay waxu dëgg yoo xamante ne bii moom lay faral di wax saa su nekk donc euh, di ko jëmale tey nag ni ma ko gisee sax mooy di ne dafa yërëm nit ñi ci ñenn ñi ci ne wàllu naxaate bi donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax numéro yaa ngi noonu di affiché au bas de l'écran moom itam bu ngeen bëggee jokkoo moom ci adresse am yi fii di jàmm gën si Kab Mbaaw ak fële na la ca Touba Mbacké dig daje ci beneen émission kéemtaan Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér te